sagru rot ca ñay faatu bés bu ne walla weer baa waxtu walla semaine kem loola jug na ci sa dund ba ba ngay faatu ku denc téeméer te bés boo romb teggi dërëm jeex ka dalay bett farlul tey xibaadaatu sa yaram wi nga yefa la kontak di raaya ka suuf rekk a koy mujje ak sax yi gannaaw faatu man Téema Jóob dénkaane waa at te te fàttaliwaat at ngir noo ngi dem te dun dëppaat amaana dig ba jege na tol nan ni bàyyi añu wuutu woon ca ñii nu wuutu nan ni nun nan daldi bàyyi xel la woon amaana dig ba jege na nan daldi farlu nag te waa yóbbal bu yiw te bun ko waa ngir ku xamul kañ la du waaj amaana dig ba jege na bakkan dafay xëy ne xuree ak lum la fekk nga mébét moo xam mu jag mbaate jagul bu dig ba yëg see sotti na tey ñëpp ngi riir wuti alal ñii ëpp lan tey capital ñii këri mar boo leen fu laal wut gi araam gi ëpp na koo gis tabax na addunaam ciy tappaleeg war yu xaraam defar kërug alaaxiraam defu fa dara perte na koll bu duy ribaane mu kay dootu mooy yàlla ba tiit ngir ab xol bu dee xalaat yàlla boroomam képp na xol bu amul tomb ci leer saytaane ne na ca biir di fuur fu mu ko yebal mu dal bu rajim ba bajjo jekku na wutin wu ñaaw amin wu ñaaw dellu ca jëf nag jëf ju ñaaw ba dee na jaas ñu xëy yeew sàmme ci bàmmeel rak lu na nga jëm ca biir bàmmeel bu yees buñ sotti suuf ba fépp fees nga tëdde wet te di soppiwu tëddin sax metti na bu ñu robee ba bokk ñaan nga des fan ak nara fanaan dal ne koral ak sambala nit ak mu jëm toroxlu na fàtte ka bon fàtte dee rek a waral ku ne bew bu ko nag fàtte dee kenn dootu reew ak a bew bu ko nag fàtte dee kenn dootu am lu ko saf kenn dootu am lu ko soofit dee waral ku ne sew koo xam ne xam nga ne tey dee gaa ngi dàq di ñëw ne nem rek la war tey jéem a daw yëfi ndaw lëf mat la bëgg tey lu dul ak jub gi fiy juru yiw lëf mat la daw tey lu dul ak bon gi fiy juru ay loo wér-wér wopp bés loo fi tedd tedd torox loo fi man man télé loo wax waxit ne selaw loo sant sant ne mbas loo fi maare maare ne cam loo fi jaglu jaglu tawat àdduna yewu ci yow bul bëgg fi nekkul bëgg loola du mbir àddina kër la gu ñuy jaar ci jokkoor ga ca ko yonent bi moo tax ñu feeñal lépp lépp lu ne bu kenn doon sax ci duniyaa kon ba tey mi ngi war suñu maam aadama junniy at yi wàññiku lëf la am te teewul ba dee yëg këram na tasaram ana xarita boromam ba waaja daa manu gan te moo di ma am suñu ibrahima dee ko warum moo sal bu suuf xëy moddu la mu am moosa ibnu imrana laa wax ndeem xamoo ko bu wérum ana ki daan soppi yéefar yi ay mbaam àll buñ ko moya eesa ibnu mariama laa wax bàjjo baari yi yàggul fi fanweeri at ak yett rekk la am ak dellu seen fii ci duniyaa wax ju siiw la ju wér loo xaje xaje dee def sa gan di la wër te loo ko berndeel lu dul sag ruux du génn sa kër bu dig ba jeexee ba ruugay wuy ji yàlla keroog moo gën a metti juróom ñaar fukki rab yu sar bés buñ la dee janti jantee yóbbu suuli ba ñëw ba jooya dal ñuy xëccoo alal ji ak li nga jur xarit ya fàttalam say doom daal di donno alal